mbokk judi di mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr porte parole xalif général des mourides ci njiital sëriñ Mouhamadou Xaban Mbacké Falilou jiite daara alxuraani ci Touba comité de coordination grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le Saint Coran di kuréel gi amal jongante bu mag bi ci alxuraanul karim ñu tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ñoo am mbégte di yëgal mbokk jullit yi yi ak mboolem ndongo daara yi ne édition bi dinañu ko tàmbale li ko dalee ajjuma benn fan ci weeru mars 2024 ba talaata fanweeri fan ci weeru avril 2024 ci mbooleem gox yi ci réew mi képp ku bëgg a bindu ci jongante bi mbaa nga bëgg ay leeral ci mbindu mi mën ngaa jokkoog Serigne Khady Diakhaté ca Diourbel Kolda Thierno Mohamedou Arona Silla Ziguinchor Ibrahima Fall 77 575 41 92 238 92 16 Fatick Cheikh Akibou Thiam 77 518 91 45 Louga Oustaz Alioune Ngom 77 923 43 37 Ndar El Hadj Ousmane Sow 77 538 66 48 Matam Cheikh Ousmane Dia 77 784 15 46 Kaffrine Cheikh Ousmane Dramé 77 Habib Dramé Dakar Oustaz Cher Djouk 77 725 36 09 Thiès El Hadj Malick Diop 77 552 28 79 Tamba El Hadj Moustapha Wane 77 534 76 12 Kaolack El Hadj Lamine Fall 77 913 86 74 muy ubbi teg mbindu mi ci troisième édition Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le Saint Coran li ko dalee benn fan ci weeru mars 2024 ba 30 avril 2024 incha allah ci mboolem 14 régions yi ci Sénégal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 ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ci bitim réew di siifur mboolem programme yi jaar fii ci Mouhalim TV waaye itam ñi ñuy siifur ci mboolem plateforme yi yëpp muy Facebook TikTok YouTube bàyyiwuñu kenn ci groupe Mouhalim Info yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di di leen ndokkale ci weeru màgg wi nga xam ne ñi ngi ci suñu borom def na mu ah, xaaj ñaan suñ borom itam mu nangul ñu li ñu weesu ñuy dëgg man itam mu may ñu kàttan ñu mën ko àggale ki jàmm ak salaam barke alxuraan barke Seex Xarim di ndokk itam mboolem sénégalais yi ci bis bi nga xam ne ci la ñu jógee muy doon tànn njiital réew suñu borom def yàlla euh, def Sénégal ak njiit lu njiit yees ñu tànn ko ci jàmm ak salaam loolu itam di wane démocratie bi nga xam ne Sénégal na ko itam dimension bi nga xam ne ko ci Afrique ñaan loolu yàlla na sax xam ngeen ne nag ci koor gi ñu ngi faral di euh, wéyal suñu émission bii di entretien avec Mouhalim waaye itam nag di ko dëppaleeg li nga xam ne moo di liggéeyu euh, koor gi ñu fas yéene nag seq waxtaan tey jii koo xam ne jàmbaar la mën naa ne itam def na ci alxuraan liggéey boo xam ne xëy na xaw xaw ma ndax xam na ko wala xamu ko waaye lu baree bay def na ko ci daara yi ndax bu njëkkoon ñu bare bay danañ mokk alxuraan waaye njàngeen wu set wu leer woo xam ne itam ku ko dégg koo xam jafe woon na naam laataa ñu xam ko waaye bi yàlla dogalee itam suñu borom def mu tàmbali liggéey bu am solo bi ko jumaa ji tax na léegi daanaka daara yi ñëpp moom lañ tëggat kenn ku ci nekk dangay jéem sab donga man alxuraan ni mu ko mane ku mel noonu nag jàpp naa ne xëy na am nañu ko xam waaye tam ba tey am nañu ko umpale muy Serigne Fallou Mbacké imaam mi nga xam ne mooy jiite ko jumaa ji ñu fas yéene ñëw moom tey jii moom mooy kan ci aw askan ci am njàngam ba tam liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci ah, jumaa ji tàmbali ko ngir nag bañ a ah, guddal ci nuyoo bi dañ koy bàyyi mu nuyoo soo ko defee ñu dugg moom ci waxtaan yi Serigne Fallou asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay dalal ci Mouhalim TV waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di delloo nuyoo mm. di leen sant bu baax a baax ci teew gi mm. di tàmbalee sunuy kaddu nag ci e, tuddu tuuru sunu borom subhanahu wa taala mm-hmm. julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam e, sant Serigne Touba di yeeta yeesalat sunug jaayante ak sunug aju ci Serigne bi mm-hmm. di ñaanale ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom may ko mu gën fee yàgg te gën a wér te gën a amuk tal ba liggéey yi nga xam ne moom la naal ci lislaam ak ci yoon murit mu def ci lu kawe njort kon bisimilah ñu ngi leen di dalal ta di leen sant jërëjëf Serigne Fall ci nuyoo bu am solo boobu baaxoo nañ nag ñaar ki jotaay bi képp ku ñu ah, dalal ñu laaj ko d'abord moom eh, ci aw askanam ci gàttal waaye xanaa ñi may faral di tooñ léeg-léeg ne koor gi moom mbàkk nu mu leen ndax tàngoor yi moom wala waaw koor gi <laughs> de tubaarkàlla tubaarkàlla ah. moom moom am na am na bis yu tàng am na bis yu tane. waaw tane na daal moom. <laughs> waaw daal tane na tane na daal. waaw am na bis yu tàng waaye am na bis yu tane. waaw macha allah alhamdulilah yàlla nañu ko àggal ak jàmm. allahumma amiin amiin xam naa de ci tàmbali rek mooy. Mm. bu ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Fallou ci aw askan lool ñu ci mën a wax. Serigne Fallou mm. ci aw askanam ci waay juróom bu góor mm. mooy Serigne Guédé Mbacké. Serigne Guédé di doomi Serigne Cheikh Astawalu Serigne Cheikh Astawalu di doomi Maam Mor Borom Mamor borom Sam ñu gën koo xamee ci Mamor Jaara mm-hmm. mooy ki bokk sëriñ bi lépp mm-hmm. bokk sëriñ bu mag bi mm-hmm. waajuru góor ak waajuru jigéen waaw ñu koy wax magi mag waaw kon ci aw askanam ci wàllu waajuram bu góor noonu la demee ba tey waajuram bu góor woowu itam maanaam daal sët la ci sëñ moor Jaara rek sëñ Mor Soxna Jaara waaw maam satub borom Sam la ndax waajuram sëriñ Gédé mooy sëtu borom Saabdi. ah waaw sëriñ euh, Cheikh Asta mii sama maam. Hmm. moo doonoon ñaareelu xalifa borom saam. Hmm. waaw moo dëkkoon misra gi. sëriñ hmm, Gédé moom itam waajuram bu jigéen. soxna Astu Buso la tudd soxna Astu Buso sëriñ Mbàkke Buso mooy waajuram. noonu lañ bokkee ci diggante euh, Mbàkke xewar ak Gédé. diggante Mbàkke Buso bi daal. waaw diggante Mbàkke Buso bi. bu dee sama waajur wu jigéen soxna xëri penda mbay lañ koy wax mm-hmm. soxna xëri mbay mm-hmm. euh, dëkk Longor mm-hmm. waajuram tudd sëriñ Babacar Mbay sëriñ Babacar Mbay Mouhamadul Mokhtar Mbay mooy waajuram Mouhamadul Mokhtar Mbay moo bokk ci mag ñi njëkk ànd ak sëriñ bi bi muy taxawal yoonu murit wax nañ ma ne sëriñ kilifa bokk nettali na ma ne bi sëriñ bi sanc Touba gi mag ñi mu fi nekkaloon daan leen jàngaloo alquran sama maam jooju ñu yooyu Mouhamadou Mokhtar Mbaye ci la bokkoon. ci mm, bokk ci Longor Mbaye. Mm. Longor Mbaye xam nga. mel na ne ah, daara mooy Longor gi ci Darou Khoudoss. la Longor waaw gi ci Darou Khoudoss mooy seen kër gi ci Touba waaye Longor gu mag ma nga ca eh, fële jooju tund Mbakol man. ci ah, diggante ah, eh, wetu cilmaxaak macha allah ci mbaakool daal mhm. Mhm. foofu mooy dëkkub cosaan bi ci soxna si ba tey so sama sama waajuru jigéen woowu di soxna xari penda mhm. waajuram wu jigéen soxna sata Jóob lañ koy wax soxna sata Jóob nag mooy doomi El Hadj Mën Njaay Jóob El Hadj Mën Njaay Jóob moom itam ci cheikh yi borom gaawaan yi la bokk sëriñ bu mag bi moo ko boole moo ko boole woon ak borom gaawaan hmm. ne ko lépp looy def na nga ci diisoo moom nañ ci waxtaan ak macha allah kon ñooñu daal la macha allah Mbacke Balla hmm. jërëjëf jërëjëf Mbacke ci loolu am solo xam na loolu li tax ñu koy laaj mooy hmm. eh, fi ñu bëgg a jëm ñaari lii da koy lay laltaay rek lay itam liggéey am solo yi nga xam ne nañ ko def eh, léeg boo xamee aslu ba rek léeg-léeg du la mën du la jaaxal mm. te ni ko déggee waxee ci diggante Mbàkke ak Mbusoobe waaye tam ci diggante waa Longor Mbay mm. nga xam ne euh, ci seen wayjur wala seen maam ña njëkk ànd ak sëñ bi la bokkoon mm. daan ko liggéey ci li nga xam ne ñu bari bari ci leen la xam muy alxuraan macha allah xam naa itam dana am solo nit ñi xam itam sëriñ Fàllu am njàngam ndax ci fan la jàngee ci ak jaar jaaram daal ci wàllum jàng waaw xam nga ñun su waajur diggante kër borom saam la Mbàkke Xewar ak Gédé hmm. waaye nag dafa des koo xamee Daaru Salaam hmm. ñi ëpp ci ñu ko xam hmm. Daaru Salaam lañ ko xamee ndax Daaru Salaam ba mu fay dem eh, booba ci ay at at yu néew la am ci fukki at ak ñeent juróom ci la toll bi muy dem Daaru Salaam waaw la ko fa yóbbu nag xam nga Serigne Mourou Mamoun mi nga xam ne mooy taawu maam Cheikh Anta. Mm. nga xam ne moo njëkk doon ab xalifaam. Mm. mooy mm. loolu dafa am soxna suñu yooyu soxna Faati Balla. di di doom yi maam Balla ay euh, am am ñetti doom yu jigéen. kenn ki moom la sëriñ bu mag bi yoroon. mooy waajuru soxna Faati Ja ñu koy wax soxna Jature. keneen ki moom la maam Cheikh Anta yoroon mooy soxna Buri. mooy wajur Serigne Modou Mamoun moom may wax. Hmm. keneen ki mooy Soxna Marème Mbacke. Soxna Marème Mbacke sox moom lañ joxoon Serigne Mbacke Bousso. Hmm. mooy wajuru Soxna Assou Bousso muy wajuru Serigne Diatta. Hmm. nga xam ne kon seen ñetti wajur yooyu moom ñoo bokk. ñoo bokk lépp loolu moo waral Serigne Modou Mamoun di nijaayam. bi mu tolle jàng alquran ba toll ci mokkal ko bindi kaamil fekk na waajuram sëriñ Cheikh Aswal wàcc na liggéey ndax daa teew la wàcc moom sëriñ bi wax xamal na ma ma moom daanaka xamut Cheikh Asta Walo hmm. xamut ci lu bari ndax lim ci seetlu ci mujj koo gis mooy bi mu ko yóbbu gedde muy dali jàng gisaatu ko hmm. bani hmm. nga xam ne kon bii muy mokkal alquran ak yi fekk naa kon waajuram jóge na fi bu yàgg suñ mudu maamu na moo ko indi woon daaru salaam ngir mu àggale fa alquranam ak jàng xam ak yu mel noonu euh, mu àggale fa mu yóbbu ko njaareem mu jàng xam-xam ab diir mu jëlewaat ko fa indiwaat ko daaru salaam sampuloo ko daara mu ba mu koy sampaloo daara yi daf ko xamal na ko liggéey dafa mënta ñàkk mm. liggéey sëñ Tuubaa dafa ta ñàkk mm. te kuy liggéey ku ne da ngay seet la nga gën a mën mm. nga jóg jëm ca boo bëggee teel am ndam ne ko yow li nga mën ci jàng alquran ak jàngale ko mën a yoo ko leneen kon da ngay jël alquran def ko muy sib sab liggéey ci sëñ Tuubaa daal koy jox ndigalul nag daal di samp foofa daara ja daara ja mooy dox ba nag ni rek mën naa ne léegi nag daaru salaam googu nga xam nag fa la sëriñ bi dëkkoon fa lañ mm. ko xamee fa la defee lépp. Mm. ñu ñi fa lañ gënee àdduna. Mm. Euh, fa lañ jàng itam mën naa ne. waaw ah, ndax foofa lañ tàmbalee sunum jàng. ci kër gi ci daara ji maanaam ci sunu waajur. mu jàngal ñu tuuti. am ku mu jox foofu ci Daaru Salaam ku jox Serigne Maam Mor Mbakke. ñu ngi koy ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko mi ngi fi ba tey di jàngale. Euh, bañ fa jógee nag ñu ñëw fii ci Touba. ci Serigne. maam Ibrahima Mbakke. Hmm. fii ci gaar bu ndaw. nga hmm. xam ne ñu bëree bëree bëri jaar nañ fa ci diggante Mbakke bu soobe. Hmm. mooy ki nga xam ne dafa sëggoon. waaye yàlla defoon mu man alquran ba yéemi ci lool. moom jaar nañ fa ba am fab diir. waaye bi fi jógee nag dañoo delluwaat Daaru Salaam. fa lañ àggalee njàng mi foofu fekk na sunu mag. nga xam ne mooy taawu Baye Siñ Gede. fekk na ko mu jógee ca Daara ja Kër Siñ Saaliw. ñëw nag yore njàngale mi mm. aw ci siñ bi mm. moo ñu àggaleel nag sunu njàngum alquran mm. foofu maam kon daal ci gàttal kon euh, manes nax rek kon ci say loxo yi waajur nga jànge waaw ginnaaw bi nga xamee ne moom euh, sëñ Modou Mamoun moo ko dayaloon ci xam la ko daal liggéey mën na ko yemale ci yéetal ci alxuraan ngaa génn ab diir waaye itam ci kon ci moom nga ko jànge waaw macha allah ndax ci ay loxoom nga mokkale waaw la déet waaw mën naa ne wax ni ci ay loxom laa mokkale comme noonu ma noonu ma la ko leerale hmm. njëlbeen gi tuuti laa fa jàng jóge fa jaar ci yeneen ñaari daara hmm. waaye dama mujj dellu siwaat hmm. bi ma dellu si itam foofa laa mokkale falaa mokkale daal falaa mokkale ba fekk ne suñ mag ji moo ñu jàngal sëriñ Mbàkke waaye man nag sama njàng sëriñ bi daf cee dugaloon loxoom suñu waajur hmm. a ah, daf cee dugaloon loxoom bu baax a hmm. baax saa hmm. bu fi nekkee rek ñaare lii war ci samam daa ngi ci ëpp moo koy def surtout bi ma tollee ci li ñu wax gëndale di taari lu bari ak di beqeeg yu mel noonu moom moom suñu waajur sax te mbàkk góor na fi ndax man euh, ci ay jamono yu yàgg doon naa mat cinq ans yaakaar ñëw naa fi euh, la sëñ bi dooru jóge yàggul rek ndeysaan waaw booba sëriñ Saalix sëriñ Saalixu yaakaar naa euh, yaakaar naa su moo fi maa ngi dégg nga doon wax ci sa mbeq mu ci doon wax lu lu doy waar sax mhm. bi nga koy wax boobu laa ne akom ah, koy day mel ne sëñ bi xanaa li la gis li la gisoon <laughs> mhm. loolu ndax mën nga cee dimbaliwaat ci mbeqi meek waaw waaw xam nga xam nga eh, mbeqi moom dafa bokk ci njàngum alquran hmm. ndax mag ñi dañuy wax ne alquran jàng gi mooy tax mu dikk hmm. waaye bind gi mooy tax mu dëkk hmm. bind gi def ci mënut a nekk moo tax eh, bala nga bind kaamil danga nga beq ñun beq nañ ñaari yoon waaw da ngay beq yoon woo xam ne yoonu roba la bi may beqi saa bu ma sëriñ bi toppalee ba noppi moom moom moom mooy yor kurusam hmm. di ma wàññal hmm. di ma ko jàngaloo téeméeri yoon <laughs> ah, robo ji dama ko jàng téeméeri yoon yoo xam ne moom mooy wàññ su ma tey mu ne ma mën ngaa yoon wu njëkk bi noonu lañ ko beqee yoonu ñaareel wi moom jotu la àgg ndax xam nga xam ne min bidaaya ilaa nihaaya comme noonu rek waaw waaw nga xam ne bu sër robo ji moom téeméeri danga ko <laughs> jàng téeméeri yoon macha allah bu toppalee ba noppi hmm. xam nga nag deq yi niñ koy ñu bari niñ koy defee tey. Hmm. ak nañ ko daan defee ba bokkul. Ah, xam nga euh, ñu bari ci daara yi tey. Hmm. bu ñuy beq day mel ni dañuy xëy jàng li ñu war a bind ba noppi door a dem bind ko. waaw ñun nag liñ xamoon. Ah. loolu moom bind bu tooy lañ ko doon def. Ah. bind bu tooy daal ngay jàng boo ko mokkalee ñu ne la demal bind ko. Hmm. nga dem bind ko boo demee ba sa loxo rafet. ci bind. léegi duutoo ko jàng mokkal waaye yaa koy bindal sa bopp mm. sa bind bu tooy bi nga war a jàng suba mm. yaa koy bind ba mu àgg nga dem jox ko suñu daal mu topp ko ba mu wow ko defee booy jàng bind bu ci alluwa jooju nga xam ne yaa ko bindal sa bopp ci nga koy jàngee ah. day yomb lool ci nga gaaw mokkal bind mm. bu ko defee booy beqi nag moom doo da nga koy bett ah. da nga koy bett day am diggante boo xam ne duutoo yor ab jukki di jàng tari rek ngay féete woo man gis naa ne diirub ñu tàmbulee beqee ba niñ beqee ba noppi hmm. da ngay def bisus daal nga dem toog fee ci wetu sëñ bi mu hmm. déglu fukk isib nga tari ko hmm. waaye yor bu jukki di jàng moom doo ko def. ba ci beq beq bi tamit daawoo jël bind. jàng ko déedéet déedéet moom laay wax naal da nga koy bett. da xëy rek dem bind bind ko ni na maa jaar xam nga man sax fi ne wax di yàlla sama daara ji bànkoor samay donga hmm. waaye ma dugg a ngay ji waaye man loolu hmm. ko tudde beq du du beqi waaw nga xam ah. baat bi wolof ah. xam nga beqi ak jeqi ñoo ñoo bokk ñoo tollooy araf ñoo bokk maana mm. mooy loo xam ne dafa nekk ci biir ta tooy nga mm. wëlbati ko mm. ngir mu wow ngir mu wow li tax mag ñi indi ci beqi mooy mag ñoo daan jëfandikoo baatu tooy ak wow ci alquran ju rafet ak ju defe ak ju desee rafet xam nga mag ku mën alquran dañ naan moom de alquran ju wow la yor mooy njàng mu baax la mm-hmm. bu fekkee ne daa bari ay yàq ñu naan alquran bi daa tooy daa tooy tooy ak wow googu moo tax ñu indi beqi muy boo jàngee alquran ba man koo tari hmm. léegi nag mu des ba xam boo ko bindee hmm. dana méngoog ni ñu ko war a bindee wala déet surtout nag nga xam na am na loo xam am rek mën a génne ah, yenn yàq yi bind rek mën a génne hmm. léegi nag boo beqee nag mooy nga wëlbati maanaam alxuraan di ci sa dënn nga feesal ko léegi ci àlluwa ñu xool ba xam hmm. nii nga ko binde hmm. ak ni mu war a demee ci kaamil bi nii la demee hmm. bu ko defee nag yow loolu moom da nga koy bett da nga bett def ko rek ni nga ko xamee ah. bu ko defee boo bindee ba noppi nag dem ci suñ daara bi mu toppal la mu ko bu ko defee lu ci dul noonu rek da koy defar defar bu fés boo xam ne boo tegoon fële àlluwa ja ba da nga koy séen xam ne baat bi moom da nga koo yàq moo tax ñu def ko ne buñ la ko toppalee ba mu àgg nag hmm. nga door a dem jàngu ko nag jàng wóor mooy téeméer yooyu yoon yooyu ma doon wax moom la ma sëriñ bi daan jàng koy def téeméer def ko robo dafa ko dafa ko beneen dafa ko ñaar robo ñaar robo yi a bari hmm. du du hmm. daanaka ndax day oh, fekk moom day fekk mu set waaw set day fekk set ni ci boo ko tàmbalee ba mu leer na ne fi mu ne mën ngaa bind ci këyit rek da ngay daal di wutal këyit nga bind kaamil waaye macha allah jërëjëf jërëjëf Serigne Fallou ci loo am solo wax dëgg yàlla jàngaat nañ ci jotaay bi loo xam ne yàgg nañoo jaaxal ñun donte nag sëriñ daar leen di jàngale waaye ni ko waxee daal noonu laa ko mën noonu laa ko sama xel mën a nangu maanaam ndax ndax ndax wax dëgg bu fekkee xale bi dafay jàng bu noppi door dem beqi moom beqiwul hmm. loolu lool loolu moom lañ ci daan li ma la wax rek hmm. maanaam da daan jàng bindi ba noppi hmm. ñu dal demal bindi ko bindi bi nga jàng tey daal ah, waaw mokkal nga ko ñu dal demal bindi ko bu dee bind kaamil nag moom bu dee bind kaamil doo ko xalaat xool da ngay amul jàng amul jàng ah. déedéet déedéet man de wax dëgg yàlla ni sëñ biir wax nii laa nii sama xel nag waaye loolu laa jànge man ma daan def mooy euh, dama daan xëy jàng hmm. nii sëñ bi wax daal ragal naa ne moom loolu loolu nag ñu bi ndax loolu yomb na ci jamono am na ñu koy def daal. Ah. am na ñu koy def ah, mi am ba léegi loolu. waaw waaw doxin woowu. waaw xanaa sa daara da kon looloo fa am. koy. <laughs> sa daara kon fi ne kuy beq doon ngay <laughs> rek. beqi amul jékki-jékki bi boo bindee ñu toppal la bu la toppalee ba noppi ko. boo ko defee ba mbeq mi àgg nga booy bind kaamil da nga koy sa doo ko bu ñuy wax bu ñuy bu ñuy wax am am mokkal lii may mokkal ma. dañuy wax mokkal noonu loolu mooy mokkal dëgg yàlla macha allah. xam nga dam dama naan mokkal alquran mooy. Hmm. nga dem fi barab. Hmm. fekk fa ay jullit hmm. amuñu téereb alquran te bëgg ko hmm. ñu wutal la kayit ak daa nga bindal leen ab kaamil boo xam ne day mel na mu war mel te doo ko xool hmm. loolu mooy mokkal alquran waaw loolu mooy mokkal macha allah jërëjëf kon mbokk yi ñu siifur ba tey yéen ngi ci entretien avec Mouhalim tey ñu ngi seet Serigne Fallou Mbacké imam mi jiite ki jumaa yi fii ci naafile ji naafile yaakaar naa ñu bare bari xam nañ ko am na ko gën a miin nag Serigne Galas eh, yaakaar naa Serigne Fallou Serigne Fallou benn la Serigne Galas benn la hmm. Euh, graisse bi dàkkantal rek léegi li bëgg a waxtaan dañoo bëgg itam ñu des foofu tuuti ndax euh, ku ne xam ne itam ni ngay jàng maa ngi wax léegi sëriñ bi ndax dañ laa war a njukkal baax a baax ndax man miy wax ak yow ginnaaw yàlla sama alxuraan bu ma nee seet bañ mën maa diglu yaa tax euh, ndax may nekk ci daara ji ñun yi may def sama dongo yi xam ne léegi damay ñëw teg ordinateur bi xale yëpp toog démb sax am naa ci xale boo xam ne xaw ko cee Euh, xaw a kiyal ndax bëgg mu diglu la rek mm-hmm. ngir bëgg alxuraan gi set wallaay ngir bëgg gone yi man ko sama dong bi ma àndal ñëw itam mm-hmm. euh, bëgg mu rey coo tax ma ànd ak yow mm-hmm. andi ko fi du ma mën a ñëpp tamit andi waaye njàngin wu bu njëkkoon jafe woon na dégg fi loolu sa waajur moo la ko jàngal wala ginnaaw bi sa xarañca nga ko mane wala noo jëf ba njàngin wu set woo muy nga xam ne tajwid beeg xiraa bi daal lépp macha allah ci ci ci wàllu tajwid ak xiraa ak euh, riwaayatu bi hmm. moom moom dañ koo dañ koo jàngale hmm. xëy na nag euh, ñàkkut ay benn benn baat yoo xam ne moom ginnaaw bi hmm. xam nañ ne niñ ko doon jànge niñ ko war a jànge dégg nga noonu tey loolu du woon sax du woon sax euh, ab yàq waaye xam nga mag ñoom buñ la doon jàngal li ñuy wooy waqfu nii mm-hmm. ñoom dañ la ko daawut jàngalaale mm-hmm. da ngay jàng alxuraan ni nga ko war a jàngi rek mm-hmm. masalan euh, bi annahum qawmun laa yafqahuuna laa laana xam nga boo taxawut moom mm, laa yafqahuuna laana xafafa allahu ngay jàng léegi nag boo ci taxawee warutoo wax laana kese yu noonu rek nga xam ne hmm. moom ay. ah seetantal noonu rek ndawaan rek waaw bu sedd woon rek waaw waaw mi waaw <laughs> oh, macha allah moom noonu lañ ko jàngee woon hmm. waaye riwaayatu bi moom naka jekk moom hmm. xam nga siñ bi comme sëñ sëñ Mbàkke Buso moo ko dalal alquran sëñ Muudu Buso bii taw sëñ Mbàkke Buso moo ko al alquran te foofu moom riwaayatu warsh dafa sëñ moo ko dalal sëñ sëñ Gede waaw sëñ Mbàkke Buso mag mi waaw mooy maamam xam nga nee naa la ah, mooy moo ko dalal moo ko dalal. kon fekkante nañ fi waaw. Hmm? fekkante nañ fi kon ah bu baax. Ah. <laughs> bu baax si macha allah suñu géej nga 1930 la ñëw jamono. Hmm. Hmm, macha allah su ko. Ah, moo ko dalal jox ko suñu mbuusoon mu jàngal ko. war su foofu moom dafa. naka jekk dañ koo mënoon kon de kon de sëñ bi kon warsa ak tajwid moom yàgg na yàgg na yàgg na Sénégal kon waaw day mel ne boo dee xool day mel ne léegi la xew waaye kon yàgg na fi ah, na si de ah. yàgg macha allah mm-hmm. macha allah bi def di yàlla waxtaan yi am na solo lool foofu nga nekk itam daf ñoo ñor lool moo tax ñu bëgg bi di fi di fi taxaw mm-hmm. eh, waaye itam damay seen bi yow rek lay roon doon la eh, saytoo noonu wala yaag ñaa ñi fa nekkoon ndax day mel ne dégg ne wax daal day mel ne sëñ bi itam eh, yitti woon na njàngum ñi fi nekkoon waaye itam yow it mel ne amoon na Ah, waaw mu yite woon ci waaw waaw man am naa ko ma fa euh, koo xam ne ñoo tolloo woon. Mm. daa dogal sama sama doomi bàjjana. Mm. maanaam yaayam ak Baye Serigne Gueye dañoo bokk lépp. ñu mm. koy wax Serigne Fallou Bousso. moom yàlla dañoo boole lu bare bare bare. daanaka ñoo jàngadoo Alquran. ñoo ñoo ñoo ànd daal alxuraan ji ba ni mu àggee ñoo ànd jàngi xam-xam. Mm-hmm. ba ni ñu noppee ci njàngum xam-xam mm-hmm. ñun ñaar daal. Mm-hmm. ñun maam suñ bi daan ñu bàyyi xel ci suñu njàng saa bu fi nekkee rek. Euh, ndax dañoo boobu nag ñoo dañoo ñoo tolloon ci gëndale. di tari lu bari ak di beqeeke def yëf. moo taxoon moom mu gënoon ñoo bàyyi xel ci. ci sunum njàng. Mm, bu ñu waree tari moo ñuy déglu bu ñu beqee moo ñuy toppal. buñ koy jàng ñoo koy bokk di jàng noonu. Hmm. waaw hmm, macha allah hmm. macha allah. jërëjëf ba tey yéen a ngi suivre Mouhalim TV ñu seq waxtaan ak Serigne Fallou Mbacke waxtaan itam macha allah riis na lool Mbacke Balla euh, xanaa kon dañuy jàll ci liggéey bu am solo bi nga xam itam moom ngay def ci jumaa ji. maa ngi koy wax léegi njëriñ li nga xam ne amal na ko yoonu murit nga xam ne. léegi daar yu bëree bëree bëri macha allah alxuraan ju am na fa te ginnaaw yàlla mën nañoo wax ne ci yow mii lañ koy royee euh, liggéey boobu itam lañ bëggoon xam kañ nga ko tàmbali ci waaw ci lu li ñuy wax bi sifa rasmiya maanaam li ci lu officiel daal mm. mooy 2009 bi suñu waajur génne àdduna mm. dajanteeg Serigne Alxaaji Baara ne fi mm. kooruk kooruk 2009 daal ci lañ ci am digalul xalif général des mourides loo xam ne booba fekku fi suñu waajur hmm. ñu tàmbali ko di ko def li ko jiitu nag xam nga hmm. daan nañ ko ànd ak waajur bi hmm. léeg-léeg tam mu jox ñu ndigalul ñu dem naafila def nañ ko diir bu xaw a yàgg ndax maa ngi seet lu ne euh, xam naa bi ma bi yoon ma njëkk a njëkk njëkk taxaw ci jumaa ji naafila ragal naa ne bu dul mi euh, quatre-vingt-quatorze yooyu yaakaar moom lay doon 1994. loolu yàgg na de yàgg na yàgg na ah. waaw yàgg na man man dama yaakaar loolu ay mille ay 2000 2003 yooyu. 1994 day. Hmm. jàpp naa ne laa fi njëkk njëkk euh, taxaw naa fi ah. ginnaaw bi nag waa léeg-léeg rek hmm. la maanaam léeg mu mu naafi la ba kaamil bi àgg. Hmm. Euh, mu jox la li ci des. léeg-léeg muy dem ba yàgg muy def bu tàmbulee ba kaamil bi sori. mu jox nga dem ba bay ba bay waaj a àggal hmm. mu jëlaat comme noonu daal hmm. Hmm. waaw di waaye xam comme comme mag moom lu muy gën dem di gën di doon mag te kuy gën di doon mag lu bari ci li nga mënoon da nga koy da nga koy da nga koy tàmbalee tële loolu moo waraloon ba mujj gi daanaka at mu mujj mi wala ñaari at yi mujj yi daanaka man maay taxawee naafila bi rawatina ko kooru 2008 googu nga xam ne euh, sëriñ bi fekk na boobu xaw naa yaram bi taxul mu neex lool Euh, ci bis bu njëkk bi rek la dem ci jumaa ja hmm. bu ñu umee hmm. li ci des lépp ci koor gi maa ko àggale ba koor gi jeex yaa ko doon waaw loolu mooy koor bu 2008 94 de loolu xanaa fekk na boobu moom xëy na boobu xanaa kon at yi moom ndax doxoon na ko bari lool waaw waaw waaw booba day booba day boobu day 94 de boobu fekk na at yi na ñaar fukk ah, ah, na ñaar fukk <laughs> daa xam nga man boo gisee may laaj mooy xam nga man yàgg dafa laa yàgg si macha allah wax dëgg yàlla waaye hmm. booba amal na yaakaar naa du woon yow dong sax waaw ah, waaw am na samay comme suñ mbàkk mi nga xam ne moom moo ñu doon jàngal. waaw bi daan na ko jox muy naafila am na sama mag bi ñuy wax Serigne Sam. waaw suñ bi daan na ko jox muy naafila amatul Serigne Abdou xaw ma. Hmm? amatul ku tudd Serigne Abdou wala. ah kay ah Serigne suñ bi daan na ko <coughs> jox muy koo jox muy naafila waaw. Hmm. Hmm, kon moom yaakaar naa menn at la menn at la moo xam ne. Euh, moom ci Serigne Abdou moom ci la bokkoon mm. waaye at yi ci des nag moom daanaka man la Serigne Mbacke ak Serigne Sam mm. man Serigne Mbacke Serigne Sam macha allah mm. macha allah macha allah Mbacke Balla ci waxtaan wi wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte lool ci seq gi xanaa sax des waxtaan yi bëreetut ndax wax dëgg yàlla xam naa ne eh, tey xaw naa bay tey itam coono yi waaye dañuy eh, yem rek eh, ci foofu ñu tolloon ci liggéey bi ñëwaat ci maanaam ndax yëg nga loolu may wax di ko junj ba léegi mooy Euh, bu dee bu fekkoo mën naa da ngaa révolutionné wàllum njàngin ci dëkk bi ndax loolu am nga loo ci yëg-yëg wala am nga loo loo xam daal yow xam nga ne moom am loo ci def ndax léeg-léeg itam nga dégg kuy jàng daanaka boo boo boo deful ndànk danga jàpp na yow loolu itam waaw loolu moom xam naa ne hmm. gis naa ay démb rek am na ko ma yónnee benn xale buy naafi la boo xam ne hmm. ah tubarkalla waaw yéemi na lool daal hmm, waaw moom kay ne <laughs> muy muy jàng nit ñi jàngi waaye macha allah. Hmm. yéeme na daal. waaw ah, macha allah loolu nag xam naa ne moom. waaw alhamdulilah dañ koy sant yàlla rek ndax. alhamdulilah xam nga alquran nag moom. Hmm. moom yàlla daa def eh, di di ko jàng di ko neexal moom. Hmm. day sunna. day sunna. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne. Eh, fa fa laysa minna man lam yataganna bil quran. Eh, ku kuy jàng alquran te du ko wayantoo daal. bokkut ci ñun. Hmm. maanaam jubluwu ci ah, du ab jullit waaye. Hmm. daa day wane rek ne. Hmm. alquran moom boo ko jàng danga nga war a fexe njàngin wi neex. loolu nag ngir mu neex nag laajut nga nga ab naar wala yu mel noonu. yow noo mën a def ba neex rek. nga nga nga def ko baax na. defee nag bu yàlla dogal moom. suñu borom defal ñu tawféex ñu am njàngin woo xam ne. Hmm. jëlewuñ ko ci kenn. Hmm. waaw moom rek. jékki rek man na lu la loo dikkal daal ko def rek waaw. waaw moo ne daal moom fàgguteef lay fàgguteef dëgg-dëgg daal lañ ko mën a ndax njàngeen yu mel moom dégg ko mm-hmm. euh, ci njëkk moom jafe woon na léeg-léeg sax yaa gars yi dañuy tooñ <laughs> ah, ah. rek <laughs> léeg-léeg eh, eh. moom loolu xëy na rek moom mm-hmm. mooy nit ñi xëy na ñàkk ñàkk xam ëmpale sa ëmpale sa wayjur rek mm-hmm. loolu daf ci da ciy feeñ waaye itam am na solo léegi ndax ndax itam euh, dañuy gis ne daanaka booba léegi wax di yàlla allah yaa koy taxawe yàlla na nga ko gën a man waaye itam ndax am nga koo xam ne tey jii moom moo nekk sama yëpp wala ci liggéey beeg yooyu noonu wala. Hmm. yore yaa ko yaa ko kii di ko ci lu officiel maanaam ci loo xam ne ndigalu sëriñ bi la de moom amagut. Hmm. waaw koo xam ne naayib la. Hmm. nga xam ne dañ naan kii moo topp kii. imaam loolu moom amagut. loo xam ne du waaye nag teewut bu ñuy julli itam ñooñu ngay seen ci ginnaaw ñëpp. waaw ah. daanaka koo koo ci ne woon kay na fi la mu mën. ko ci noonu waaye nag loo xam ne moom sëriñ bi moo joxe ndigal ne kii na topp ci. sëñ Fàllu bu bu fi bu fi nekkul baa bu amee ngànt na taxaw lool moom amagut. bis bi la sëñ bi njëkkee wax kaay taxaw nga naaf li moom loolu sëñ bi nu mu demee woon. <laughs> de. waajoon nga ko. Euh, ah déedéet déedéet waajoon ko. Ah, waaw waaj waaj waaj waajoo ko woon officiel waaye waajoon nga ko rek ndax ku gis njàngin yi ni nga ko waxee moom. waaw euh, man li ñu waajoon la moom. waaw macha allah waaye daal jëfewutoon ndax na. déedéet nag. waaw ah. jëfewutoon xanaa nag ca bu njëkk baa njëkk nga xam ne daanaka booba at yi moom foofu ma lay wax la tolloon ci diggante ñaar fukk ak yu mel noonu xam nga li ngay xalaat da dut bari ah, daanaka ah, looy def rek da koy mën a da nga ciy dugg kii waaw macha allah léegi nag looy gën di dem di gën di hmm. doon mag hmm. euh, stress bi ak yëg-yëg responsabilité yi mel noonu hmm. eh, moom dana ci léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg yi ne leen Euh, comme ka mën alxuraan dëgg fi nga koy xamee mm. ndax yéen ñi fi ne mën ngeen a tari kaamil di ngeen ci gag di ngeen yàq mm. loolu du ngeen rungi mm. ndax di nekk seen xel du la kenn def la lu may jàng waaye boo demee bu dugg àddina ba yeneen war la nga a taxaw tere alxuraan dëgg dëgg li ñuy wax foofu lay feeñu njàngum am njàngum am solo amee solo ma feeñe xam naa kon ñu jeexale rek ci sëñ bi moom lu bokkut ak ñu bare bare xam ne laa xam ci naafile gi waaye lan mooy sëñ bi lan mooy yëngoom lan mooy yëngoom waaw lan ci léngu daal maanaam xanaa yor daara waaw di am nañ daara fee mi Misra. Mm-hmm. am nañ daara fee ca Daaru Salaam. Mm-hmm. daara ci nekk nag ñu ngi cay lu mi dox. Mm-hmm. Ah, bu dul loolu. ab béykat béykat maanaam di nekk ca tool yi di béy. <laughs> waaw béy <laughs> waaw. université bi xanaa yaa amal ne. waaw daara ji waaw université bi itam moom xam nga ndigalu sëriñ bi loo xam mm. ñu ci liggéeyloo dañu saytuloo daara yi alquran ja. Mm. loolu itam daa bugg ci biir. Mm. liggéeyub daara yi rek mooy sax liggéey bu mag. ndax foofu moom mel na ne jàng mi yëpp ci yow lañ ko. njàngum alquran bi. waaw yaa ko yaa ko njàngum yaa ko yor. ñoo ko yor yaa koy saytu waaw. njàngum alquran bi ñoo Euh, macha allah hmm. ma la sëñ bi kon loolu ñuy wax rek la sëñ bi la sëñ bi gis rek loolu ñuy seetlu ba mu seetlu rek hmm. muy wax di yàlla njàngeen wu seetlu rek euh, neexew ni ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Mbàkke Balla lan ngay tàggatoo kon jërëjëf xanaa sant leen bu baax hmm. ñu ngi sant bu baax te di leen gërëm ci jërëjëf Mbàkke yitte yi nga xam ne yéen a ngi koy def ak jéego yi nga xam a ngi di tisaare lépp loo xam ne war naa tisaaroo léeg-léeg ñu leen di bàyyi xel ci ay xew-xew yu bari ñu leen di ñaanal suñu borom mu gën leen a yëkkati ba ngeen bëgg si bi àgg fa hmm. mu àgg fa ba kawe seen jort ñu ko ñaanal baax yàlla def ci barke allahumma amin barke borom Tuuba macha allah jërëjëf Mbacke Balla kon Serigne Fallou Mbacke imam la woon hmm. fii ci émission entretien avec Mouhalim ñu seqoon ak moom euh, waxtaan yaakaar naa waxtaan yi tax ko gudd loolu waaye itam lu lu am solo feeñ na ci hmm. ñu koy sant bu baax di gërëm ci disponibilité waaye itam woyof gi nga xam ne seetlu nañ ko ci moom nga xam ne moom ñaare fu mu la gisee dangay dangay yaakaar su laa xam lu yàgg mais njëkk a gis daf maa daal di lëng <laughs> waaw suñu fàllu xanaa damaa xam fekk sax ndeysaan xanaa di dong rek te te woyof rek mm-hmm. Mm-hmm. waaye yàlla suñu borom dolli ko euh, guddal fanam yokk gërëm wax dëgg yàlla ab sag la ci yoon wi sag la itam ci ci ci ci daara ñëpp a ngi koy safoo yàlla suñu borom dolli ko dimbay defal mi xam itam rakkam la fekk ci kër gi ku baax itam masha Allah di jàmbaar di sant itam cameraman yi ànd suñu seexna ak itam ñaari seexna yi sax laa a wax mm. ak suñu ndongo su xee su tuuti see Cheikh Abdou ñaan nag nga ñaanal ma ko mu mel xam naa mel na yow dana jafe waaye mu mm, jégale rek <laughs> nga ñaanal ko bu baax a baax kon jërë ngeen jëf mbokki ne sur ci Mouhalim TV jox leen dig ci beneen eh, émission wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu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

alif laam miim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi mbokk yi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 point 25 104 477 40 02 point 32 salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi dalee nag jàmm fii ci Touba Xayra cosmétique nekk fii ci Dakar rond-point case ba deux voies Cambérène yi di jaay bépp xeetu parfum bu ngeen bëgg ak bépp xeetu diwukaay bu ngeen bëgg ba ci parfum Kilif Kera parfum Nova ay diviseurs yi ngir chambre ay déodorant say am itam parfum Seva Verek ñoom waa Touba Xayra cosmétique di jaay ay gamme Nova Carotte gamme Exclusive White gamme Kii Plusite boo bëgg am na fa ba ci gamme François Bodon am nañu gamme Patricia am nañu itam ay diwu góor mel ni ki toppi Sansovite gamme Fervite gamme Q plus gamme Patricia Regnier gamme Nova Carotu ay diw yu baax lool gamme Macré ba ci gamme Extreme Glow yii xeeti gamme yu baax lango ak ay parfum yu baax bu ngeen agsi fii di ngeen ko fi fekk ñi ngi nekk ci Dakar parcelle rond-point case ba deux voies Cambérène yi seen numéro téléphone 77 432 58 56 au 77 278 11 11 Touba Xayra cosmétique ñoo ñaanal ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général kullu murit mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Serigne Modou Bousso Dieng bàyyi Serigne Jili ak Serigne Moutala tey balagaara. hamdan liman yafalu kullama